nu fas yéene dellu ak yéen ci sunu bind ñaar fukkeel ak ñetteel ci téere boobu di moxtasar cheikhul xalil di ñaan suñ boroom mu dimbale ñu ci nu war a ak yéen ci faslun lii ab dog la dog bi daf ciy wax lu aju ci wàllum nit ki bu amee ab gaañu gaañu ba mënu ko raxas na muy def ak moom dog bi nag dog bu am solo lool la bu mata yittewoo la ndax doomu aadama li faral di am gaañu gaañu nekk ci yaramam saay mu metti lool ba buy jàpp wala buy sangu mu di ko gaar mu xam nag na muy def ak moom lu ci am solo la ba du ko yàqal ci xeeti jaamu yàllaam tax mu ne faslun lii ab dog la in xiifan ndeem ragaleef na xaslu xiin raxas ab gaañu-gaañu ka tayam mumin ragal gu mel ni gañu ragaloon ca tiim musixa kon masaayeef ko bu fekkee da am ab gaañu-gaañu ci sa yaram te nga ragal ne boo ko raxasee mën naa jur lor mel ni nga xam ci sa bopp ne gaañu gaañu bi boo ko raxasee tawat ji dana yokk wala mën naa sos sax jeneen tawat wala mën naa yéex a wér moo xam danga koo xam yow ci sa jëm bopp wala ab docteur bu xam moom moo la ko wax kon su boobaa béréb boobu danga koy masa bañ ko raxas masa gi moom ngay jiital bu fekkee ne mën ngaa tooyal sa loxo masa noonu ci kaw rek kon su boobaa dangay masa noonu ci kaw bañ koo raxas su fekkee ne masa gi jàppandiwut mu ne summa jabiratuhu topp gara balam ga bu fekkee ne wóor le boo tooyalee sa loxo masaa ko ci kaw ragal nga mu jur lor wala ndox mi sax ragal nga mu dugg ci moom mu dugg ci biir kon su boobaa da koy garabal ngay wut dara diw ko ci ni mentilaato wala wut dara daal loo xam ne boo ko ci diwee eh, ndox mi mën naa bañ a jàll ci biir nga diw ko ca boo ko ci diwee ba pare daal di masaa ci kaw loole nga xam ne moom nga garabal ci kawam kon bu fekkee ne masaa ko noonu noonu te diwoo ci dara jàppandiwut da nga koy diw dara def ci dara garabal ko boo ci defee garab ba pare nag daal di diw dal di masaa ci kaw loole nga garabal bu fekkee loolu jàppandiwut mu ne summa xisaabatuhu topp ŋaawam ga wala topp bandaasam ga bu fekkee ne wóor na ne jàpp nga ne mënoo ci masaa ci noonu mënoo ci mënoo ko garabal itam def ci dara ci kaw masaa ci kaw kon su boobaa nga bandaas ko boo ko bandaasee wala nga ŋaaw ko am loo ci laxas laxas ci morsa daal di masa ca kaw morsa boobe mhm. kon bu fekkee ne masa ci kaw noonu jàppandiwut masa ci la nga ci diw ci kaw jàppandiwut kon da ngay masaa rek ci kaw la nga xam ne moom lañ ci bandaas mhm. ñett yooyu nag tegalee ko noonu warugar la ba banoon bu njëkk bi mën a masaa ci kaw noonu bàyyi ko fa laxas ci dara di ci kon su boobaa du baax kon dangay xool ñett yooyu nga tegalee ko noonu yooyu mu wax nag mu jox la ci misaal ka fas di nit ki gàjj gàjj mooy nit ki noonu ñu koy defee ci nit ki am gaañu gaañu bu nekk ci yaramam ñu jël lu mel ni karité diw ko ci jël paa ko tàngal ko am na nuñ ko ciy laale gannaaw bu demee nag ba loole deñ mën naa jur ab góom góom boobu nag masaa ci ca kaw mën naa jur ay lor yu demee noonu waaw maanaam laal ci ndox moom góom boobu mën naa jur ay lor kon su boobaa mën nañoo masaa ci kaw wala ñu garabal ko masaa ci kaw garab ba wala ñu bandaas ko masaa ci kaw bandaas ba wa mararatin ak wextan wextan ñu bari xam nañ ko ñuy fees xam nañ ko bu fekkee moom lañu def ci góom ba su boobaa mën nañoo masaa ci kaw wextan woowee saraa bi sax day wax ne ak doonte dafa bàyyikoo ci lu araama lekk mel ni xinsiir muy mbaam xuux kon su boobaa itam du tee nu mën a masa ci kaw waxtaan woowee te itam dees na ko mën a jullee ndax lor ji moom moo ko waral waxirtaasu suduxin ak këyitu kaabaab bu fekkee dafa am bandaas boo xam ne danga ko taf ci sa kaabaab këyit su boobaa itam bu tee da nga mën a masa ci kaw bandaas boobee wa ximaamatin ak kaala xiifa goog ragaleef na bi nasxiha ci ak dindeem naka noonu itam bu fekkee ne danga def ak kaala ci sa bopp te sa bopp bi benn mu am ay góom yoo xam ne jàpp nga ne kaala gi jàpp nga ne boo ko dindee rek mën naa jur lor kon su boobaa danañ la may nga masaa ci kaw kaala ga bu fekkoon sax danga am ab sedd boo xam ne boo dindee kaala gi nga kaalawoo ci sa bopp sedd boobu dana la lor mën na laa jural ngaañ kon su boobaa danañ la may nga masa ci kaw kaala googu bu fekkee nag mën ngaa masa dara ci leneen bopp bi kon su boobaa da ngay masa la nga mën a masa rek la nga mënta masa nga mhm. loolu ñu wax nag bu fekkee ne da nga ragal ci sa bopp lor ju méttee métti wala nga ragal ci sa bopp alkaane kon su boobaa masa lu war lay doon bu fekkee nag lor ju woyof nga ci ragal kon su boobaa dañuy sopp rek nga masa ci kaw googu tax saraa bi naan ay aljurxu wujuban in xiifa halakan aw zadidu asha wa nudiba in xiifa maradun xafif wa in bi xuslin ak donte ci sangu la ak donte ci sangu farata la xam nga lii mu wax ci njàpp la waaye sax da sangu farata boo amee gaañu gaañu boobu ñu wax nga mën a masaa ci kaw loolu kon boo doon sangu farata itam am gaañu gaañu itam du tee nga mën a masaa wala nga diw ca dara wala nga takk ko masaa ci kaw loole nga takk donte cangaayal sax cangaayalu cangaayal njaalu la ni nga njaalu rek dem di sangu farata du tee nga man loolu tax saraa bi naan walaw min zinan lintihaai tahrim bintihaaihi aw bila tuhrin wala doonte ci lu ak laab la day bañ nga jaawale ko ak masa ay bot yi nga jàlloon nga masa ay bot dañoo waxoon ne bala nga caa sañ a masa day fekk bol yo ba nga koy sol nga sol ko ci kaw ak laab waaye gaañu gaañu bii ba koy takk bu fekkoon fekkutoon nga amee am njàpp kon du tee itam boo jàppoo ba àgg foofu wala boo sangoo ba àgg foofee nga mën koo masaa duñ ci sart ba nga koy takk fekk nga amam yàpp ñu bañ nga jaawale ko wan tasarat ak donte tasaaroo woon na naka noonu itam bu fekkee ne gaañu-gaañu yi dafa bëri ci sa yaram mel ni nga am sa loxo mu ay góom yu bari yu ci tasaaroo nga takk lépp xam nga fi mu toll mën ngaa takk diggante boo xam ne amuti gaañu-gaañu waaye takk bi moo ko waral wala bandage bi kon su boobaa itam du tee nga mën a masaawaale ci fa nga xam ne amuti gaañu gaañu ta nga takkaale ko xam ne bu fekkoon da am benn góom ci misaal nga takk ko fi nga takk ci suufam da gis ne foofu amul gaañu gaañu waaye takk bi wala bandage bi moom moo waral lool kon su boobaa itam du tee foofu danga koy masawaale muy wan tasaat ak doonte tasaara woon in sax ndem wér na jullu jasadihi li ëpp ci aw yaramam aw aqallahu wala gën ga néewam walam yadurra tadu lor xaslahu ak raxasam lii ñu la wax nag biñu biñ la koy digal mooy bu fekkee ne li ëpp ci saw yaram wér na wala sax li gën a néew ci sa yaram wér na te boo raxasee wala boo masaaye la nga xam ne moom moo wér ci yaram wi du jur lor ca la nga xam ne moom moo wéradi kon su boobaa moom lañ la koy digal waaye bu fekkee ne wóor na sa yaram wi kat la ëpp ci yaram wér na wala la gën a déw ci yaram wi sax moom wér na waaye boo raxasee la wér masaa la nga xam ne mooy la wéradi kon su boobaa raxas googee nga raxas la wér man naa jur lor mën naa jur feebar ca la wéradi kon su boobaa dootuñu la ko digal kon lay bàyyi nga tiim moo xam nag li ëpp saw yaram moo wér wala la gën a néew saw yaram moo wér moo tax mu ne wa illaa bu fekkee ne bu raxasee la wér dana ko jural gaañu gaañu dana ko jural lor kon fa farduhu farataam ak toye moomu moo di tiim ka an xal la bu néewee jiddan lool bu fekkee wóor na ko ne bu raxasee la nga xam ne moo wér ci aw yaram moo xam la ëpp la wala la gën a néew dana ko jural ngaañ lu méttee métti kon su boobaa daf koy daal di bàyyi rek daal di dem tiim bu fekkee itam ngaañ lu woyof rek la koy jural kon su boobaa itam ñu sopp ci moom rek mu bàyyi ko daal di dem tiim naka an xal la ni ko bu néewee lool naka noonu bu fekkoon ne li gaañ sa yaram nag daa néew lool lool mu misaale ko kayadin ni ki benn loxo waaw benn daal li wér ci aw yaramam moom laa bëgg a wax daa néew lool mel ni benn loxoom rek moo wér la des lépp lépp ay gaañu gaañu la kon su boobaa itam dañ koy digal rek mu farat tiim waaw kon loolu mat naa bàyyi xel boo fekkee ne sa yaram la ca wér lu néew la mel ni benn loxo kese kon su boobaa dañ koy dax wax rek mu daal di far tiim wa in xasala ndeem raxas na ko nag ajji saa mu doy ko waaw loolu nga xam ne dañ laa digaloon ne la masaa ko boo ci ragalee lor nanga ko masa moom nag bu jàllee ci raxas ko bañ koo masa ah, kon de doy na des ko wax dara dañ ko digaloo rek mu masaa ko waaye nag bu fekkee ne da ko war far raxas kon su boobaa itam jotee baax na mm-hmm. wa in taxadara ndeem gàntal na masoha ak laalam ak masaam waxiya te fekk na moom bi a'daa'i tayammumihi nekk na ci cëri ay tiimam nekk na ci cëri tiimam tarakaha mu bàyyi leen wa tawadda tamu jàpp bu fekkee ne gaañu gaañu bi daa metti lool ba mënoo koo laal masaage nga xam ne moom lañ wax sax mënoo ko waa def mënoo koo diw mënoo caa diw dara di ca di ko laal dana faral di am am gaañu gaañu boo xam ne daal moom mënoo koo laal ci benn côté te fekk na gaañu gaañu boobu dafa nekk ci cëri ay tiimam cër yi nga xam ne moom lay tiime mooy kanam ak loxo ndax tiim moom weesuwul kanam gi ak loxo kon loolu li muy tekk mooy bu tiimee tiim bi manqué bu njàppee yitam njàpp mi dana manqué bu fekkee gaañu gaañu bi daa nekk ci cëri tiim yi kon su tiimee tiim ba du mat ndax gaañu gaañu bi mënu koo laal ci benn côté bu jàppoo itam njàpp ma du mat ndax gaañu gaañu bi mënu koo laal ci benn côté kon su boobaa dafay bàyyi tiim bi daal dem jàpp bu ko defee bu jàppee ba àgg foofee nga xam ne mu am gaañu gaañu moom mu dégg ko fa bàyyi ko noonu bañ koo laal ci benn côté waaw wa illaa bu fekkee nag ne gaañu gaañu ba dafa nekk ci cëri njàpp nekkut ci cëri tiim kon fa salisuha aj ñetteel wax ji mooy yata yammamu day tiim in kasura ndeem bari na wa raabixuha aj ñeenteel wax ji mooy yejimahu huma da leen di boole ñoom ñaar ñépp mhm. nee bu fekkee ne gaañu gaañu bi nag dafa metti lool ba mënee su ko laal ci benn côté waaye bi yoon nag moom nekkul ci cëri tiim men dafa nekk ci ndëggoom wala mu nekk ci boppam nga xam ne nekkul ci cëri tiim kon loolu li muy tekki mooy bu tiimee tiim bi dana mat sëkk waaye bu jàppee njàppali moom dafay manqué kon foofu am na ñeenti wax yoo xam ne daf caa rot moom borom téere bi nag ñetteel wax ji la indil ak ñeenteel ba waaye wax bu njëkk bu daa wax ne lu mën a xew dafay jàpp bu ko defee bu jàppee ba àgg ci béréb boobu nga xam ne mën koo raxas mu dégg ko foofu ñaareel wax ba ne déedéet moom koy day bàyyi njàpp ma tafar tiim ndegam bu tiimee tiim bi mat te bu jàppee njàpp li du mat day manqué kon su boobaa day bàyyi njàpp la daal di dem tiim ñetteelu wax ji moom dafay teqale ñetteelu wax ji mooy day wax ne day tiim bu fekkee ne gaañu gaañu ya dafa bari ci sartu bu fekkee ne gaañu gaañu ya bari na waaw bu fekkee ne gaañu gaañu daa bari lool kon su boobaa nag moom day daal di far bàyyi jàpp ma dal di tiim waaye bu fekkee ne gaañu gaañu yu bëriwul nag kon su boobaa dafay daal di jàpp kon yete yam moomu ci sartul nag in kasurandeem bari na ñeenteelu wax ji daa wax ne day boole yaar yépp day boole tiim ak njàpp waaw day boole tiim ak jàpp loolu mooy ñeenteelu wax ji boo tànnee wax ji nga xam ne mooy waxi ñeenteel bi nag te bari na téere yoo xam ne tànn nañ ko borom siraaju salik borom ashalul masalik ba nga koy jàng moom biir la tànn lool mooy da ngay jàpp gannaaw boo jàpp ba pare jàpp li ngay jiital boo demee ba war a julli bu ko defee nga daal di tiim am da ngay jàpp te béréb boobu nga xam ne mënoo koo laal foofee di métti ba nga xam ne mënoo koo laal ci benn côté nga dégg ko fa bàyyi ko boo demee nag ba war julli nga daal di door tiim waaw waaye doo njëkk tiim bi ndax boo njëkkee tiim bi door dem jàpp kon su boobaa daa ci farate tiim tiim ba nga ko ca la taxoon ngay tiim te su boobaa sosale koo daf lay daal di tiim day daal di yàqu kon da daal di jàpp boo demee ba war julli nag daal tiim jàpp loolu itam li fekk tojut su beneen julli dikkee la neexee du aajowoo nga di ko baamuwaat da daal di dem tiim rek daal julli incha allahu taala wa in nasaxaha ndéem dindi na ko li dawaa in ngir saafara aw shaqatat wala mu rot wa in bi ak doonte ci ak ci ak julli la ak doonte ci biir ak julli la xataxa mu dog julli ga wa raddaha tamu delloo ko ca wa masaxatamu masaawaat ko waaw gaañu gaañu bii nag mu wax muy garabal gi nga xam ne bandaas bi nga xam ne moom la wax ne da ko ci bandaas daa wax ne bu demee ba dindi ko te fekk mu ngeekum kon su bëggee bañ a ñàkk njàpp moomee dafay gaaw delloowaat ko te daal di koy masaawaat ar bu demee ba dindi ko moo xam mu dindi ko ngir def ci garab ngir saafara ko gannaaw bu ba ko dindee ba pare su bañee ñàkk njàpp moomu kon su boobaa la ko cay delloowaat daal di koy gaaw masaawaat ci kawam waaw ci delloowaat day masaawaat ci kawam bu fekkee ne julliwut mhm. waaye bu fekkoon fekk ci biir ak ci digg ba bandaas boobu daal di rot loolu mu ŋaawoon ci kawam daal di deñ kon su boobaa dafay daal di dagg julli ga ndax kon day mel ni béréb boobu nga xam ne moom la masaawoon daa moo mottali woon njàpp mi li masaawoon ci kaw lool moo mottali woon njàpp mi te kon bu dañee day mel ni am njàppam dafa manqué kon su boobaa julli googu dafay daal di yàqu dafay daal dagg julli daldi daal delloo ci loolu te masaawaat ko bu fekkee ne bañ te ñàkk am njàppam bu fekkoon da doon jiite itam bu boobaa kon du wuutal maa moom itam dañuy dagg comme moom xoolee saraa mooy wala yastaxlif du wuutal dafay dagg maa moom itam dagg te du wuutal bu ko defee mu delloo wàcca loolee nga xam ne moom la ca defoon bu ko daal di masaawaat ko ca wa in sax ndem wér na xasala mu raxas ko foofee nga xam ne nag dañ laa mayoon nga masaa bu demee ba wér nag kon su boobaa danga koy daal di raxas hmm. lii ma la wax sax ne la bu demee ba bandaas ba dañ danga ko cay delloo waat ko ci kaw rek fekk nga yor am jàpp te bëggoo ñàkk jàpp moom waaye bu fekkoon ne yoroo am jàpp kon su boobaa bu la neexee nga defaat ko ca boo ko masaawul itam dara du ca nekk waaye li muy wax ni mooy fekk na nga yor am njàpp te bëggoo ñàkk njàpp moom ndax foofu dañ fi indi àtte mu waalaatu moo tax muy sosale kon heure bu dañee da ko ci delloo te masaawaat bu fekkee bëggoo ñàpp njàpp moom bu yàggee rek su boobaa bu fekkee yaa ko tey la nga defoon dafay daal di yàq bu fekkee ne teyoo ko kon su boobaa da daal di yéene daal di ko ciy def daal di ko ciy masaawaat bu fekkee yaa ko te yàggut kon sa boobaa itam du yàqu tax boo xoolee sara bi indi na ne tàmbalee ci waraddaha ay aljabirata masalan wa masaxaha in qaruba aw baxda wa nasimu ne faye jiri xona xukumul muwalaati wa in saxa ay al ay baria al jabira wala al jurxa wa huwa ala taxaaratin xasala ma xukmuhu al xuslu fi xuslil janaabati ay alwudu wa masaxa ma xukmuhu al masx ka simaahu uznin wa masaxa saxsun mutawaddiun ma saxa ala ximaamatihi rasahu mubasharatan wa bana bi niyatin in nasiya Mhm. wa bana in tamad in taamada maalam yatul sara na loolu jàpp ra'sahu boppam naka noonu ki nga xam ne daf doon jàpp am kaala gum def ci boppam baragal ne bu ko dindee sedd ba mën na ka dugg wala am ay góom yu nekk ci boppam ragal ne bu ko dindee mën na ko lor su boobaa dañ koo digaloon mu masaa ci kaw kaala ga bu demee nag ba góom ya wér ba góom ya wala sedd ba nga xam ne moom la ragaloon dañ na xam ne daal wóor na ko ne léegi mën naa dindi kaala gi masaa ci kaw bopp bi kon su boobaa nag dafay daal di dindi kaala ga daal di masaa ca kaw bopp ba bu bañuy ñàkk jàpp moomee nga xam ne moom la yoroon waaw kon mbokk yi xam naa mën nañoo taxawlu noonu incha allah ba dellu si waat lu fi ñu xam ne suñu borom la lu fi dëng itam ngeen jéggal ñu ko te jubbantil ñu ko wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi tasliman wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa